yéen ñëpp euh, ci seen tour euh, ak seen sant di jéggalu ci yéex euh, commencé bi di am mbégte di dalal taskatu xibaar yi yéen journalistes yi acteurs de la presse di leen di masawu ci li nga xam ne mu ngi continuer di leen di dal ak sa ak Serigne mi nga xam ne. teg nañ ko garde à vue euh, depuis euh, démb euh, day rek yokk firndeel li nga xam ne moom la ñu tàmm wax fii tàmm ko wax ci biti ne la presse du Sénégal est en danger les acteurs de la presse au Sénégal sont en danger et qu'il y a un recul grave des libertés en général au Sénégal et des libertés de la presse en particulier. Une presse qui est bâillonnée, une presse qui est étouffée, une presse euh, qui est piétinée, une presse euh, dont les acteurs euh, sont victimes de violences quand ils sont sur le terrain et qu'ils font leur travail. Micro arraché, caméra arrachée, interdiction de filmer, journalistes et caméramans gazés et journalistes emprisonnés, journaliste molestés, journalistes régulièrement convoqués Euh, à la police, à la gendarmerie, au tribunal, euh, quand ils ne sont tout bonnement pas emprisonnés. Et donc aujourd'hui, euh, les cellules